ci turu Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne moo jiite màggalu Kazu Rajab yor kàddu Serigne Aboul Baraka mi nga xam ne mooy Cheikh Mahamadul Fadil mu jëlee ndigal ci ay kilifaam muy Serigne Bassirou mi nga xam ne mooy mooy mooy jawriñu mooy magam di bi di Cheikh Aboul Baraka mi nga xam ne mooy Cheikh Fadil mi nga xam ne moom la ñuy defal màggal bi jaar kii ba tey. jëwriñu si Abdou Fatah muy Cheikh Mouhamadul Mourtada ak mboolem rakkam yëpp sëriñ bi jox ñu ndigal wax ne na ñëw teewal ko ci jataay bii booleenu nag ak njaboot gi ñu tàmbalee ci sëriñ Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne mooy caatu kër gi ànd ak mboolem ay doomam limoon naa leen sànq muy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoul Karim moom Cheikh Mouhamadul Fadil ñi nga xam ne mooy sëriñ Abdoul Karim mu mag ma moom lañ tuddee sëriñ Abdou Karim mii ngeen xam ak sëriñ Saalih Mbàkke mi nga xam ne mooy doomi Cheikh Moustapha Falilou teewal fi jiir Jili ànd ak mbooloo mu takku ak mboolem njabatug Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moom itam bisam dafa dugg ci biir bis bi moom mbiram dafa jaxasoo mbirum Cheikh Mouhamadou Fadil danañ ci ñëw ci kanam ak itam sëriñ Abdourahmane Fall moom itam mu ànd ak euh, sëriñ Cheikh ak mboolem daayira yi nga xam ne ñooy ni ko sunu mbokk Serigne Fall may waxee ñooy seeti Serigne Fall waaye ñooy taalibe Serigne Fall yi ànd ak mboolem mi nga xam ne itam mooy ñi nekk ci comité d'organisation bi ñëpp ci Serigne Fallou Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom la tuddee dongo yi ak doomi dongo yi ak dongo yi laxasaa yi ak mbooloo mi liggéeyal Cheikh Mouhamadul Fadil te nekk ca sow ñoom itam ñoom ñëpp ñu ànd àndandoo ci njiitul Serigne Mat Thian ñu àndandoo ñoom ñëpp ñëw teew teewe si jataay bi teewal fi ñu ñuy liggéeyal Serigne Fallou ma nekk ca Ndakaaru nee na Serigne Modou mbay la ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal lim bi day sonn nag itam sëriñ bi waaw ñoom ñëpp ñu ànd ñëw teewal fii Cheikh njabootu Serigne ba nekk Ndakaaru gépp di def liggéey bu ràññu ko ci màggal gi muy ñoo xam ne Cheikh moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Fadil moo leen joxoon ndigal ñu ñëw di àndandoo màggal gi bu jotee ñoom ñëpp ak mboolem taalibe yi fa nekk di def benn convoi di ñëw di fekke si bis bu tedd bii ci bisub Cheikh Mouhamadul Fadil kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñoom te leen sant ñoo am taxawaay bu rafet bi ñu def ñoom ci màggal ak mboolem ni ma ko waxee rek njabootu sëriñ bi sëriñ Fadilu moom sëriñ Abul Baraka ànd ak sëriñ Abo Mbeng ak mboolem njaboot gi sëriñ Moustapha moom sëriñ Mamoor moom Cheikh Mouhamadul Fadil sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Jiili ak mboolem ñi nga xam ne rek damay bañ a lim ak sëriñ euh, Murtada moom sëriñ Abdul Fatah ak sëriñ Xaadim moom Cheikh Abdul Fatah moom itam ñëw na ci jataay bi ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ñëw nag teewe si jataay bu tedd bii nga xam ne dañ koy waajalee bisub Cheikh Mahamadul Fadil mu ñëw nag ci jamono joo xam ne dafa xaw a xat ndax dafa fekk muy jamono joo xam ne dafa am lu xew ci àddina bi di tawat ju doy waar yàlla dogal muy law boo wax nañ ne dugg seen a Sénégal moo tax bu ngeen gisee li ci tàmbali ñu ubbee alquranul karim wax li tax ñuy daje te li tax ñuy daje mooy fàttaliku ganeek àdduna Cheikh Mouhamadul Fadil waaye mu xewoon nag ci jamono joo xam ne lislaam bépp da ko bokk muy bis bi nga xam ne ci la sallallahu alayhi wa sallam riñaaloon jóge masjidul haram dem masjidul aqsa jóge fi borom bi subhanahu wa yéege ko mu yéeg ca péyam yu kawe ya dem ba fa ko soob mu jàngal ko fa la ko soob xamal ko fa la ko soob waaye teral ko nag teraanga joo xam ne mosu koo teral benn yonent li ñuy baax ak li ñuy tedd lépp sallallahu alayhi wa sallam moo mas a am loolu bi mu dem itam ba mu demee baytul maqdis wax nañ ne ba waaje fa bay jëm ci boroomam fu mu toll rek am na ku mu fekk ci yonent yi alayhimu salaam ñu nuyoonteeg moom màggal ko teral ko mu jàll wax nañ ne yonent yàlla aadam la njëkk a fekk ci asamaan su njëkk si am na ñu wax ne ba mu demee ba ci su mujj sa Seydina Ibrahima alayhi salaam la fa fekk diggante bi nag fekk na fi ñu bare bari bi mu demee nag ba àgg foofa Jibril alayhi salaam wax nañ ne moo ko jël si woon wax nañ ne bis boobu itam la ko gis nu ñaareel ci jëmmi Jibril alayhi salaam bi mu ko njëkkee gis mooy bi nga xamee ni ñëwoon na di ko jàngal si di ko sa alquranul karim te baat ba ca njëkk di iqra mooy tàmbali jàng bismi rabbik booba ci tur ci jëmmi Jibril alayhi salaam la ko gisee. waaye gisinu ñaareel bi nag mooy bis bi nga xam ne ci la ko sallallahu alayhi wa sallam ci la ko borom bi subhanahu wa taala di rañaale wax jibril alayhi salaam mu jëlsi ko booba nee nañ ci turu jëmmam la ko gis te loolu jàpp nañ ne moo ko njëkk def bi mu dem itam mboolem yonent yi ni ñi mu romb ni ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu wax ne fu dem jiital nañ ko màggal ko xat xaddamoohu zawaajahu waxtaramoohu dawi naqaay wa saada fihim wa baana anhum mu sangu ci seen kaw terlu ci seen kaw bëgg ci seen kaw waaye bokk ak ñoom mbég moomee noonu la ko sëriñ bi waxee mu àgg ba dem foo xam ne jibril alayhi salaam mi ko doon yóbbu foofa la mën a yem mu ne ko man fii laa mën a yem bu ma weesoo fii damay seey ci leeri borom bi subhanahu wa taala waaye borom bi nga xam ne ala kulli shay'in qadir man na lu ne moo lu ko fa jëlee yóbbu ko ba fa ko mu dem ba jege ko noo xam ne kenn mësta jege borom bi subhanahu wa taala noonu te loolu alquranul karim la fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa ila abdihi ma moo tax bi ñu ubbi abul baraka moom Cheikh Mahamadul Bachir jàng sóoratu Israa boob yi sóoratu Najm boob yi nga xam ne dafa dafa dafa misaal dafa tracé dafa nett nettali ni nga xam ne noonu la tukki boobee deme ba mu jeex waaye dafa tàmm dafa tàmbale woon itam ci subhaana lasi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa lépp alquran la al isra wal miraaj borom bi subhaanahu wa taala moo ko wax ci alquranul karim kon moo tax ñu ubbee aaya boobu ngir wane na kat bis bi ñu tax ñu teew mooy bis bii nga xam ne moom la sunu borom subhaanahu wa taala di wax waaye xéewale ñu ci nag baaxee ñu ci gan ak Cheikh Mouhamadul Fadil mu teg ci itam nag ay bayit yoo xam ne Serigne Fallou moo ko woyoon ku ne xam na ne boroom xam-xam bu mag la woon di bindkat bu mag bu ñu tuddee Cheikh Mouhamadul Fadil rek nit ñi lewet ga la xalaat yaatu ga tabe ga baatin ba waaye nag xam-xam bi itam lu yaatoo yaatu la woon ndax bayit yi ñu fii. defe naa ne boroom xam-xam yu bari danañ jàng bay wax naan ay agrégé lañ ay doctorat lañ waaye bind bayit yu mel nii moom ah damay bañ a wax waaye yombul te da ko yomboon nag fu mu ko fekk rek fu mu fu mu ko fekk mën na faa bind bayit am na ñaari bayit yu mu bind yoo xam ne ak yu bari sax yoo xam ne digg mag Cheikh Mamadou Bachir la yoo xam ne digganteeg maam Cheikh Mbaye moom Cheikh Mamadou Kabir moom Louga moom la yu ci ne dañuy bind jox ko mu daal di wëlbati këyit wa tontu ca si loolu nag defe naa ne moom yombul te loolu Cheikh Amadou Fadil noonu la doon def waaye bayit yi ku ko dégg li ci nekk ci tawxiid li ci nekk ci toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa taala li ci nekk ci wéetal yàlla li ci nekk ci jox yàlla cërëm waaye li ci nekk nag ci ñaan ko nga xam ne mooy li borom bi subhaanahu wa taala gën a bëgg ndax Cheikh Saalih Mbacke daana wax ne borom bi tab la boo xam ne ku ko ñaan rek la bëgg loo ko gën a ñaan mooy mooy gën nga koo jox dara darajaam gën ngaa xam ne moom rek moo am waaye bayit yi ni ko sëriñ bi ubbee li xayrika la nashko ilaahal wara amra sunu bu nu amee jàq jàqare wala ñu am jafe-jafe wala ñu jaaxale duñ dem ci kenn ku dul yow borom bi subhaanahu wa taala tàllal la suñu loxo wax la fi ñu toll wax la sunu tiitaange wax la sunu njàqare wax la sunu lompañ ci sa kanam xamal na ne yow rek yaay alqawiyul aziz yow rek yaa am kattan yow yaay alqadiru ala kulli shay yow rek yaa man lu ne kon ñi ngi ñëw taxaw ci sa kanam di say jaam yu lompañ di la ñaan sunu soxla te xam ne doo delloo loxoy neen muy bayit yu am solo yoo xam ne jamono naqari woon ay jafe am lu xaw a mel nii wala lu ko gën a doy am sëriñ bi ñaan bind bayit yooyu wax ne nañ ko jàng waaye bañ ko jàngee sunu borom daal di def jàmm lépp saafaraw njaqare yëpp dañ xewal yi daal di dotti ko loolu moo tax ñu ubbee ko jotaayu tey bii ñaan nag loolu yi nga xam ne sunu borom defal na defal na ko ko te du deñ mu defal na ko ci lii nga xam ne moom la ñuy tin ci àddina bi moom la ñuy tin ci réew mi ndax ki tax ki amoon xew-xew bu màgg boobu ci bis bi muy sallallahu alayhi wa sallam mooy rasulul alamin yemul ci jullit di de waaye yàlla daf ko yónni ci bindeef yi kon yërmande yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindeef yépp la war a matali kon ñaan gi na matali àddina bépp fépp foo xam ne jàngoro ji dugg na fi yàlla ko fa yàlla jële tam bañ faa jël fam fa tam bañ faa duggati foom tolloon na fa yam yàlla bu mu ci barkeb al isra wal miraaj ci barkeb sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb cheikhuna al xadim radiallahu anhu ci barkeb cheikh mahamadul fadil mi nga xam ne moom la ñu fàttaliku ci jataay bii moo tax ñu ubbee woon bayit yu am solo yooyu sallallahu alayhi wa sallam nag bi mu tukkee dafa indaalib sëriñ muy julli juróom wax nañ ne damay bañ a guddal waaye juróom fukk la woon waaye muy dellu ci borom bi mu di ko ko wàññil ba mu des juróom juróom yooyu ku ko julli da nga am yoolu ko def juróom fukk ya waaye Cheikh Mahamadul Fadel ci fonk julleem bu ko daan leeral di ko jàngale day wax sax niñ ko mën a dugalee ci biir julli mooy ñeent yi ngay jiital bala ngaa julli tisbaar ak ñeenti tisbaar ñeent yi ngi ciy toxtal bala ngaa julli ba boo jullee tisbaar ba noppi ñeent yi ngay jiital bala ngaa julli eh, eh, takkusaan daal di wax na nag diggante takkusaan ak timis kenn du fi julli te kenn du fi dem naa bi xoolal na mu déggee na mu déggee fiq nga xam ne foofu da koy dafay daf koy daf naan tekk ne foofu nag desu fi naafil te loolu xam ne fiq maliki bi nga xam ne moom la ñuy pratiquer fii ci Sénégal ak ci Afrique soowu jant ñoom loolu la ñu wax diggante takkusaan ak timis desu fi naafila moom moo ko daan jàngaleel boppam kon muy bis boo xam ne itam dañ koo jagleel jàmm dañoo baaxoo at mu jot ñu tànn benn tomb boo xam ne moom la ñuy waxtaanee ci màggal gi mu doon tomb bu yaatu boo xam nag dañ ciy dind génne ay tomb yu baree baree bari di waxtaane loolu ni mu ñëwee ci lislaam ni mu amee njariñ ci àddina bi waaye ni ko Cheikh Mouhamadul Fadil daan jëmmale daan ko jëmmal ci boppam daan ko jëmmal ci njaboot gi daan ko jëmmal ci ay dëkkandoo daan ko jëmmal ci doomu aadama yépp loolu ren kon jàmm lañ tam tànn te jàmm ku ne xam na ne moom mooy mbokkum njaboot jàmm itam mooy lislaam ndax al islaamu min assalaam diine ji sax ci jàmm la jóge te sallallahu alayhi wa sallam nee na ab julli dëgg mooy koo xam ne du lor mbokkam du tooñ mbokkam te ku ko tooñ mu jéggal la du tooñ mbokkam ci lenn li nga xam ne nit mënees na cee tooñ nit mooy wareesuta tooñ nit ci ab daram wareesuta tooñ nit ci alalam wareesuta tooñ nit ci njabootam wareesuta tooñ nit ci pas-pasam wareesuta wareesuta tooñ nit itam ci ci ci ci ci ak njabootam loolu kon mooy li nga xam ne moom la ñu fàttaliku ci bis bi di ci jokk ak bokk itam mooy di xool ñi nga xam ne dañoo wëllëre woon ak Cheikh Mamadou Fadil bokk ak moom ñi njabooti Cheikhul Khadim at mu jot ñu tànn ci ñoo xam ne dañuy dem ci ñoom fedd li fa ak bokk fedd liwaat fa diine fedd liwaat fa ak jaxasoo ren jii ñoom itam loolu ñi nga xam ne ñooy sët yi tànn nañ ko ci li ñu tuddee rajabiyaat waaye kazu rajab nag bu ñu ko waxee faw ñu fàttaliku Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo sosoon bis bi moom moo ko wooteel Serigne Fall Serigne Fall daf ko daan dundal saa bu jotee mu dem ca xaritam ba mbokkam ma Cheikh Mahamadul Mamoun fanaan ak moom ñu yendoo tudd yàlla yendoo jàng alxuraan yendoo dundal lislaam yendoo julli dundal ak bokk bu fa xëyee jaar ki sëriñ Afi Ahmadu Ñang mi nga xam ne moom itam mooy magam yan jaar fa jokk fa bokk yendu fa ci kër soxna Xawa Buso soog a dellu këram nan la ko Cheikh Mahamadul Fadil daan defe waaye dundal al israa wal miraaj bi mu fi bàyyi ko nag ba mu am ay at Cheikh Moustapha moom Cheikh Mahamadul Fadil moo woote bis bii di ko jagleel moom itam fàttaliku ganekk àddina Cheikh Mouhamadul Fadil kon mën nañu wax ne Kazu Rajab sunu borom daf koo fayee Cheikh Mahamadul Fadil ndax moo wootee noonu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu màggalam gi màggal gu mag gi itam Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu moo ko digle woon njëkk koo defal boppam waaye woote gi nag ne na ñëpp daje si Touba di ko fi defee Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko defal Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu kon dafa mel ne Kazu Rajab léegi am na ko wax ne ñoom ci courant bi gis nañ ne liñ ciy jëfandikoo daanaka moog liñ jëfandikoo ci màggal gu màgg ñoo toll tolloo bi mu waxee loolu sant naa yàlla ci biir santal Cheikh Mahamadul Fadal borom bi subhaanahu wa taala ndax mbiram noonu rek la mën a demee te dafa seeyoon ci biir Serigne Touba ñu wax ne awma lenn awma lu ma bëgg awma lu ma xam awma lu lu Serigne bi waaye nag noonu la Serigne bi defoon sallallahu alayhi wa sallam Serigne bi dafa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy léppam Cheikh Mamadou Fadil ñëw def noonu Cheikhuna al Xadim radiyallahu kon bu ko sunu borom fayee bis bu toll ne màggalu Kazu Rajab loolu ak cant la cant boobu ak fàttaliku gi ñu dugal ci Cheikh Mahamadul Amin nga xam ne mooy rakki Cheikh Moustapha Fadil ñu àndoon ñoom itam daan taxawee Kazu Rajab gii mu doonoon kenn ci moom moom it doonoon ku seey ci Cheikhuna al Fadil ba ñëpp xamee ko loolu yàlla dogal nag mbiram far seeyaat ci biir Serigne Fall moom itam ndax bisam dafa dugg ci biir màggalu Kazu Rajab kon ñu ngi fàttaliku Cheikh Mahamadul Amin moom itam ci màggal gi ni ma ko waxee Cheikh Mouhamadul Fadil bu fonkee jaamu yàlla du yéeme ndax daf anniversaire u julli moom dafa maase moom ci bis boo guddi gi ci la sunu borom subhanahu wa taala farataale woon julli kon moom bu tax àggalalee Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu jumaay Tuuba kon loolu itam daf koo wuyu gannaaw boobu Cheikh Moustapha al Karim tàmbalee ci ndigalul Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu doonoon ku am yërmande doonoon itam ku jaboote woon ñëpp. doonoon itam koo xam ne amuloon xaj ak seen defe naa gouverneur junj na ko léegi sànq bi mu wax ci digganteem ak euh, ñi nga xam ne ñoo jite woon réew mi kon ñi ngi sant bu baax ci jataay bi di ñaan nag ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm di xam le ne guddi la goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala du ci dellooy loxo képp ko am itte wala nga am aajo ñëwal ngir yàlla ak isra wal mi'raj jëmmi Cheikh Mahamadul Fadil teewlu ci sa xol ñaan ko te xam ne lu ñu fa ñaan sunu borom dana ko ndax yàlla yërmandeem rawatina mbooloo mu tol noonu tase wéetal ko jóg ngir moom di ko ñaan faw mu nangul ci kenn te bu nangulee kenn ñëpp lay nangul loolu moo tax ñu fonk julli juróom borom bi subhaanahu wa taala digle ko waaye wax ne bu ajjuma jotee nañ tase ca jumaa ja bokk jooxe farata bokk ñaan yërmande yàlla faw mu acc tun ah, aj makka looloo tax at mu jot ñu ne ku ko man nag jullit yëpp dañ jóge ci àddina bi tase ca makkatal mukarama jooxe farata waaye àndandoo toroxal yàlla bokk luñ sol ñëpp summi ko lëkkaayu ñu wax ne yàlla yow rek yaay boor ñun ñu say jaam ñëw nañ nag dale ñaan si ku ne xam na ne foofa lu fa ñaan lu fa waay ñaan yàlla du ko delloo kon loolu lañu ñaan mu dugg ci isra wal bi fépp fu waay nekk te ñëw ni ko Cheikh Abdoul Fatah daan waxee te yor ay bagaan yu rëy rëy lu mu rëy rëy te nga yaakaar ci yàlla ñëwal taatan ko te xam ne sunu borom dana la ko duyal ba mu fees dell ci barkeb Cheikh Mamadou Fadil ci barkeb al isra wal mi'raj ci barkeb Cheikhul di wax nga jotte leen ñu cant gi nag ak nuyo boobu ni ñu ko wax waxee woon ci turu Cheikh Abdoul Fatah mu jële ko ci kilifaam ñu ngi la koy sant di sant mboolem chef de service yi nga xam ne ñoo fi teew di suba ba léegi xam nañ ni jataay bi yàgg na metti na waaye nga jotte leen ñu ko itam ba mu yegg ca ministre de l'intérieur mu jottali ko ko njiitu réew bi di président Macky Sall ndax xew-xew la boo xam ne état mënu cee ñàkk li nga xam ne taalibe yoo ko war a war a def moom lépp def nañ dañ koy def at jot gis nga ni mu yokkoo waaye li nga xam ne itam mooy li nga xam ne moom la ñu soxla ci wàll gii ñu taxawoon ci daaw ñu ngi sant ci li weesu waaye di yaakaar ne itam incha allahu taala sunu borom dana lu dimbale ba li nga xam ne moom moom lañ bëgg a def ren ji incha allah am ko ci yéene kenn ku nekk wax ko ci service boobu nekk sunu borom dana nu kàttanal ba nga xam ne danañ ko mën a def ni nu ko ni nu ko bëggee di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yàlla na seet bu yàlla bu fi benn xew-xew bu dul noonu am nit ñi jóge seenu njaboot di taataa ni xéewal di jaamu ji yàlla di torox lu ngir seen borom subhaanahu wa taala yàlla nañ ñëw ci jàmm liñ fi ñaan ñaan ñëpp yàlla nangu ko ñu delluwaat ci jàmm te kenn bañ a manqué kenn bañ a manqué ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Cheikh Mamadou Fadil ci barkeb euh, Al Isra wal Mi'raj di xam leen ne euh, am na ay xéewal yoo xam ne niñ ko baaxoo def muy njaboot gii mbooloo mii di liggéeyal Cheikh Mamadou Fadil moom itam indi nañ ko ñu ñaan gouverneur boo noppee nga gis ak mbooloo mi ñu ànd jëfandikoo ko di sant mboolem taskati xibaar yi di leen xamal ne ñoom itam dañoo am cër bu rëy rëy ci Kazu ndax Kazu Rajab dafa doon loo xam ne ci àddina bi yëpp yëpp yëpp lañ koy màggal daaw yónnee nañ ñu ay ay ay vidéo yoo xam ne nun dañoo yéemu boo seetee Italie Brésil États-Unis d'Amérique fépp fépp fépp foo xam ne rek ña ay murita nga fa ay jullita nga fa sax laay wax ndax alisra ma daa ñëpp ko bokk dañ ko fay màggal ñun dañ ñoo yónnee loo xam ne dañoo jàpp ne Tuubaa lañ ne fépp rek fu ñu def màggalu Tuubaa ñu ngi fay def Kazu Rajab kon damay wax ci li ma waxoon ne kon it dañ koy dañ koo fayee Cheikh Mamadou Fadal te kenn digalu leen ko ñoo koy defal seen bopp amul xajji ak seen amul amul kii murit la amul kii tijaan la amul xaaj ñëpp ko bokk ngir al isra wal mi'raj sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko moom inna wa ma arsalnaaka ila kaafatan linnaas rasulul alamin waaye nag itam Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne jikko jooju da koo doon ci turandoom wa dal ne ko ci bis bi nga xam ne ci la loolu xewe woon kon ñu ngi ñu ngi sant yëpp di ñaan itam kon ñu jëfandikoo xewal yi la wax waaw waaw waaw waaw di jagleel nag ak ak cant nag Cheikh Abdou Ka moom wax nañ ko mooy ki nga xam ne moo jiite commune bu tuubaa waaye ni mu ko waxee sànq doy na kenn jërëtul ji ci teg dara kon loolu daf ko doon waaye dafay teewal nag jabootu Cheikh Abdou Lahad ku nekk xam na Cheikh Abdou Lahad ni mu demee woon ak Cheikh Mamadou barki démb ci bis yi ñu tàmbali muy li ñu waajalee rajab bi dañoo demoon ci kër sëñ Ousmane Bousso sëñ Ousmane kenn ku ne xam ne diggam ak Cheikh Mahamadul Fadil ci ñi wax ne daanaka moo gënoon a jege waaye Cheikh sëñ Ousmane moom yi Cheikh Abdoul Ahad moo ko joxoon sëñ nga xam ne mujj gi bu sëñ di ñëw di di ñëw ci sëriñ bi këram lay jaar dal fa mu ñëw yëglu ba gis ne yaatu na mu ñëw ne ko Cheikh Abdoul Ahad fi mu ne ko ne yegg si barki démb gis nañ ngan gi nga xam ne Cheikh Abdoul Baraka ànd naa njabootu sëñ Fall yëpp dem Euh, Poroxaan de euh, saw dem euh, dem Touba leen gane ñu ko sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne seen diggante ñoom moom ñëpp xam nañ ko loolu moom jaratul wax kon moom ko ñu ngi lay sant ci engagement yi nga xam ne jël nga ko fi di di di di sant ñi nga xam ne jël nañ fi ay engagement yu ñu war a ñu war a def di siyaare nag ki nga xam ne mooy borom bis bi nga xam ne lépp moom lañu koy defal ci ndigalam ak ci ak ci ak ci ak ci càmmam ak ci ak ci njiitam muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko ba li nga xam ne bëgg na ko yéen a liggéeyal lislaam ci toolub Serigne Touba mu indi ko ndax wax naa ne Serigne Touba moom amut lu yees Serigne Touba mooy lislaam léppam rek mi ngi ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu la waxoon ne dafa jóg rek ngir yeesal yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye indi fi yees moo tax lépp lu wuteeg lislaam du yëfi Serigne Touba lépp loo xam ne itam lislaam la la mooy mbirum mbirum Serigne Touba jullit ñoo ay njabootam jullit yi ay bokkam bindeef yi ñooy ay bokkam kon ren demoon nañ ko sëñ Ousmane so gannaaw fan yii war nañoo dem ko sëñ Thierno Diaw lépp di ci jokk ak bokk ba war nañoo dem itam kër sëñ Birahim Ndiaye doon moom itam kenn ku ne xam ne sëñ Ndiaye Guédé ak Cheikh Mamadou Fadil war nañu conférence bu mag bi nag nga xam ne moom la ñuy def bu ñu nee gannaaw suba la ñu ngi ko tuddee ma euh, Massamba Diop saabu kon daal ñu ngi sant bu baax di gërëm